Euh, Birama man lu ma am lu may wax mooy université dañ ko war a tijji en intégralité. waaw waaw ku ci nekk sa problème. université dañ ko war a tijji <laughs> en intégralité gisuñu blocus fenn foo xamante ni am na war na mën a. vous voulez étudier mooy l'idéal université. tijji mhm. université dañ ko war a tijji en mhm. intégralité. ok ñu mën a jàngi si dans de très bonnes conditions loolu la ñuy laaj. Mhm. comme ñoom autorité yooyu noonu tey nga xam ne ñoom ñoo jël prise de décision boobu noonu seen doom yi lu ñu amee droit à l'éducation. di jàngee feneen ak feneen ñun fii lañu am yaakaar fii la suñu doole toll fii lañ am yaakaar que ni bu ñu fa génnee dinañu réussir donc ñun lu ñuy ñaan mooy dañuy ñaan mooy nañu tijji université bi ñu mën a mm. dellu dans les plus brefs délais mm. dans l'immédiat donc wax mm. dans les meilleurs délais de. non non dans l'immédiat dans bu ñu bu mënoon génnee tey tey tey tey communiqué ñun bëgg nañ dem suba suba suba jàngi on est prêt waaw loolu lañ bëgg su may ñëwee. Maria. Mhm. moom mooy euh, man je déplore. Mhm. et suñu camarades étudiants yi certains ñi nga xamante ni politiciens yi dañ leen jàppee ay marionnettes. Mhm. biir université ok loolu c'est man dama koy dama koy déplorer. c'est-à-dire étudiants yi nga xamante ni certains de ces étudiants yi nga xamante ni ñoo ngi biir université biir campus di politique sans fair le pour et le contre. ok ñi leen di utiliser ñiy jàkkaarloog seen morom étudiants yi voilà ñiy jàkkaarloog seen morom étudiants yi maanaam étudiants yi di rayante seen biir la solidarité estudiantine a toujours existé donc ñun waruñu nangu ay politiciens mm. jógee si biti mm. mm. dañuy jaxase suñu biir solidarité estudiantine dafa dafa mës a existé dafa mës a existé loolu moo waral te loolu moo waraloon ref maanaam lépp lu étudiants yi duy xeex bourse wala leneen ñi si am gain de cause mais buñ demee ba étudiants yi seen biir bëgg a def affaire de appartenance ah. loolu yaa problème loolu tamit dañ see war a bàyyi xel te hmm. loolu maa ngi siy woo sama mboqu étudiants yépp bu ñu topp politiciens yi ñu ñuy utiliser hmm. parce que ñoom seen intérêt lañ nekk di xool te tamit politiciens yooyu noonu ñoom tamit il représente une petite portion loolu tamit dañ ko war a xam une petite portion dans ce pays dëkk bi am na ay am na am na am am na am na ay acteurs de développement am na ay kilifa yu fi nekk ne tekk kenn déggulu leen am nag ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni am nañ yenn doole yenn nombal tànk yi mais mm. jëfeewuñu ko donc ñun du ñu nangu tamit jeunesse bii nii du ñu nangu maanaam mm. pays bi gars yi di ko plonger dans le chaos